asalaamaaleykum mbokku internet yi nuyu nañ leen yéen ñëpp ziar leen tey jii la mardi 4 mai 2021 ñu door ak yéen revue de presse bi dooree ko fii ci Sénégal bay ci sa wewu tànk record yéeni kaay la ñuy jël ma ngay wax ci gàcce gi nga xamante ni waa CAF ñoo xëy rek ne Sénégal yow kat sa stade yi benn baaxu ci éliminatoire yi nga war a am nii mu jëm ci mondial 2022 doo dalal ñi nga war a am fii ci réew mi de mu ne ko lu tax mu ne ko sa stade yi benn baaxu ci Sénégal nag ma ngay tuñ-tuñi di daw di dem fu nekk ngir lan dalal fa ay adversaire am tànn na nag ay réew nee na Mauritanie gii suñu wet ak gine yi nekk suñu wet moo xam ñaari gine Guinée Guinée Bissau Guinée Conakry bëgg na fa yóbbu ay adversaire am dalal leen fi ba ci Cap-Vert wala Maroc léegi daal ñu ngay jéex ci sunu mbokk yooyu fan lañ war a mën a dalalee sunu adversaires yi jëm ci éliminatoire mondial 2022 loolee nag gàcce la ci réew mu toll ni Sénégal réew mu nga xamante ni Sénégal football bi kat am na ci ndam ndax classement FIFA moom moo jël pay moom mii di Sénégal kon loole gàcce la waaye tamit euh, kii di Sadio fës na ci xët wu njëkk wa moom mii di Sadio ndax ñii di waa Barcelone ña ngay wut nag jéem ngir lan doomu Sénégal bi dem ca Barcelone kooku loole nag la Laporta di président bi ak commande di coach ba commande nag ci fàttali moo ko yoroon fële ca Southampton moom mii di Sadio Mané nee nañu comme Ousmane Dembélé daal waxagul ne day yokk wala day dem kon ñun nañu xool ba xam nu ñuy def ngir doomu Sénégal bi ñëw ca Barcelone. waaye tamit euh, yuñ fa jógee dañuy jël stade yéenekaay stade yéenekaay mu ngi wax ci jongante bi tey Ligue des champions demi-finale retour Manchester City mooy dalal Paris Saint-Germain loolee nag. stade bi ma ngi cay wax de nee na ah City mii ñetti defet la am ren de ca dëkkam boobe waaye Paris moom it ah na def fulla ak fayda de loolee nag la coach suba xam di kii di Pochettino nee na tey daal bu fekkee bëgg nañoo am ndam il faut ñu def ay sacrifice gëm suñu bopp xam ne yëf yi lu ne mën naa xew loole nag kii di Guardiola ma ngi koy tontu de nee na ko man nag sama ndaw yi leen rek laa leen di ñaaxee de bu ñu bëggee qualifié il faut ñu jëmbat fulla ak fayda ngir mën a qualifié tey daal dara waruñu lu dul qualifié kon nañu jëmbat fulla ak fayda def match bu baax njuumte waruñu ñun ñii di waa mën Manchester ñu jugee Sénégal ne coow dem fële ca Portugal jël record bu Portugal moom ma ngay wax ci kii di CR7 di Cristiano Ronaldo record nee na Cristiano Ronaldo coow li bari na lool waaye daal lenn képp la bëgg moom mii di Cristiano Ronaldo loolee nag njabootam gi ànd nañ ci muy famille ba muy lan Cristiano Ronaldo bu jeexalee fële ca Juve day naan coow dem ca Portugal dem ci Sporting bu Portugal fa lañ ko xamee woon mu jeexalee fa carrière football moom nee na dafa bëgg bu amee 40 ans dootul football ci fàttali Cristiano Ronaldo bu jeexalee ca Juve day fekk mu am 38 ans mu dem fële ci Sporting signé fa ñaari at bu jeexee mu bàyyi football loolee la bëgg loole nag njabootam gépp ànd nañ ci loolee ki ko xam ne mooy record bu Portugal. ñu jugee Portugal wutali France jël l'équipe l'équipe ma ngay wax ca waa Paris Saint-Germain nee na face à l'histoire jàkkaarloo ngeen ak taarix de tey jii Paris lenn képp la bëgg mooy qualifié ca final ba am ñaari final yu tegaloo loole nag pour ngeen am ko mën sa Manchester City da leen a dóoroon aller 2-1 la leen dóoroon kon tey il faut ngeen jëmbat fulla ak fayda ngir yaakaar bañ a tas ngeen mën a dugg ci taarix yéen ñii di waa Paris Saint-Germain ànd ak Neymar Junior ak ñoom doomu Sénégal bi ñoom Abdoulaye Diallo ndax doomu Sénégal bee di Idrissa Gana Gueye dafa am carton rouge ñu jugee France wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport de dello Sport kii di Fonseca moom la fësal ci xët wu njëkk wa dafa waxoon ne moom du démissionné moom Fonseca waaye xibaar yu mujj génn kii di Fonseca waa AS Rome dàq nañ ko tëbal nañ ko mu dem. loolee nag journal bi nee na déwén nag kii di José Mourinho moo nar a ñëw nag ca bang ba toog doxal liggéey bi moom mii nga xam ne bi ko kii di Tottenham dàqee sax yàggul contrat ba signé nañ ko déwén kii di José Mourinho. mu nekkoon fële ca Tottenham moo yor AS Rome bu Edin Dzeko waaye waaye tamit équipe yi nga xamante ni dañoo bëgg a qualifier ca Ligue des champions ba dàqante ba door na nag Lazio la ak AS Rome ak kii di Atalanta Bergame ak Naples bu Kalidou Koulibaly loolee nag attaquant yi lañ ca yaakaar bu dee waa Juve kii di CR7 di Cristiano Ronaldo moom lañ yaakaar bu dee waa Naples kii di osimen la ñu yaakaar bu dee waa Lazio Bochum kii di ci Ciro Immobile la ñu yaakaar ngir qualifié bu dee Atalanta Bergame kii di Luis Muriel di doomu Colombie moom la ñu yaakaar nag ngir qualifié ca c ba muy Ligue des Champions kon nag yëf ya ci scudetto bi jeex na waaye dàqante ba pour dem Ligue des Champions ma ngay woy ca scudetto ba ñu ñu jugee Rome dem Torino fekk fa Tuttosport Tuttosport nee na trois coachs pour la Juve ñetti coach la Juve bëgg loole nag li ko waral mooy ñoom ñoo di waa Juve dañoo jàpp ne ñii di waa Real de Madrid ba léegi seen xel mu ngi ci Maximiliano Allegri ngir jënd ko mu dem fële ci Real de Madrid nee nañu loolee nag bu amee kii di Zinedine Zidane day libre kon ñoom ñu ngi koy yaakaar ngir jënd ko waaye kii di Andrea Pirlo journal bi ma ngay wax de nee na Pirlo moom bu jëlee quatrième sax dañ koy tëbal dañ koy dàq kon nag Pirlo subaam ëllëgam yëpp mu ngi koy joué ci match yii di ñëw démb am nañu ndam lu ama am solo seen diggante ak Parme dañ ko duma benn bal ci dara loolee nag tax na kii di Parme moom wàcc na officiellement ca Serie ba waaye kii di Torino ma ngay des di yaakaar ngir des ca Serie A ba déwén incha allah. ñu jugee Torino dem Milan fekk fa Gazzetta dello Sport kii di Romelu Lukaku la fësal ca xët wu njëkk war nee na scudetto bii maay fi roi de c'est moi le roi loolu la wax. waaye kii di Antonio Conte nee na dafa bëgg tegle nag déwén nit da ko bëgg a jël de waaye loolee nag pour mu am nee dafa bëgg ñaari joueurs yu baax ñu indil ko ci équipe ba ba ñett ngir mu mën a doxal ak góor bu baax boo xamante ni lu naaw rek moom mu fekki ko jàpp ko loolu la bëgg moom Antonio Conte kii di Mauricio Sarri ña ngi ko doon xaar fële ci AS Rome waaye loole du mujj am ndax kii di José Mourinho moo mujj jël équipe bu Rome bi waaye kii di CR7 démb dafa xaw a mer wala bërki démb waaye mujj na sedd ndax mu mujj na duble waaye kii di Gigio Donnarumma moom nee na waa Milan ñu fexe nag qualifier Ligue des champions Ligue des champions bu ñu qualifié wul man damay dem man mii di Gigio Donnarumma ci fàttali nag Gigio Donnarumma moom moy góolu AS Milan bu Ibrahimovic ñi jugee Italie ne cow dem Espagne wàcc Madrid jël Marca yéenekaay Marca yéenekaay ne na soit central kii di kii di si Zidane ma ngay wër nag ñu mu teg ca défense ba nee na nag dàqul de lan 3 5 2 ña ngi koy xaar tey suba de waaye kii di Hazard ak kii di Sergio Ramos dellu si waat nañ ci équipe bu Real de Madrid waaye ñoom ñaar lenn képp leen bëgg muy lan depart contre Chelsea suba loolu lañ bëgg ñoom ñaar de waaye kii di FC Séville dafa kale ca digganteem ak Athletic Bilbao la doon jonganteel démb waaye kii di Iñaki Williams moo dugal benn bit bi am ci match ba loolee nag tax na kii di yaakaar gi mu doon am ci liga bi tas na ndax Atlético mi jël pee juróom benn poñ la ko rawee moom mii di FC ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay AS yéenekaay ma ngay wax ci jongante bi war a dox suba ci diggante Chelsea ak Real de Madrid nee na kenn bëggu ko manqué na kenn bëggu ko wuuta ndax Ramos bi mu wéree yàggul Mendy bi mu wéree yàggul ñoom ñëpp nag Zidane woo na leen ngir ñu fekkee yëf ya waaye kii di Rafael Varane du bokk ci jongante ba waaye kii di Federico Valverde moom dafa amoon corona waaye yëf ya jeex na tàkk ba Zidane woo na ko ngir mu ànd ak équipe bi dem fële ca Londres waaye kii di Pep Guardiola waa City ñu ngi koy dànkaafu de ne ko équipe bii nag ba mu sosoo ba léegi mosul dem final te yaa ngi ci yoon wi de yoon wii daal góorgóorlul ba bum la rëcc yoon waa ngi doon doxalal yow mii di Pep Guardiola. ñu jugee Madrid ne coow wutali Catalogne ca waa Barcelone ya ñu fekk fa Mundo Deportivo de Depay moom la fësal ca xët wu njëkk woon na ne doomu Pays-Bas bi àllarba gis nañ ko fële ca Barcelone mu fa doon wut kër ngir dëkk si fa kon nag loole mën nañoo njort ne moom mii kat dana football ca Barcelone déwén ndax kat moom li ko Barcelone fay sax naam bariwul waaye moom mii di Memphis Depay lenn képp la bëgg mooy football ca Barcelone waaye kii di Messi dafa woowoon nag gaayam ya muy àndal ñoom pike ñoom De ak ñëpp ñoom Ter ca këram ñu ànd def reer bu neex ñu waxtaan Messi ne leen ah coupe du roi bi jël nañ ko loolee passé na waaye nag liga bi nañu jëmbat fulla ak fayda bu ñu ñàkk benn match ci match yu ñu dese mën nañ koo jël ba léegi ñun ñii di waa Barcelone. ñu jógee Mundo Deportivo jël sport sport Neymar junior la fësal ci xët bu njëkk wa nee na waxtu Neymar nag jot na. doomu Brésil bi tey jii diggante Paris Saint-Germain ak City ña ngi ko cay xaar nee na nag tey jii bu Paris qualifié wul ah ëllëgug Neymar dina taq suuf ndax Neymar depuis yàgg na Barcelone mu ngi ci bëgg koo jënd moom mii tamit mu ngi doon yokk bëgg yokk contrat moom mii di Neymar mujj tegaat lépp ci suuf ne day xaar kon est-ce que du Neymar mii bu fekkee Paris dafa toog ci demi-finale yi est-ce que du jógee ca Paris Saint-Germain loole laaj bu samp la kon nag ëllëgu Neymar tey jii lay leer wala heure bu Neymar daal jot na kon sama gars yi foofu la yëf yi yem ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen bëggee di ñaan ngeen wéy di abonné